jërë ngeen jëf mbokki internet yu Allô Sénégal gannaaw bañ leen nuyu rafetlu ni ngeen di toppee suñu chaîne bi euh, ngir rek informé lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew euh, tey nag dañ koy dooree rek suñu acte du jour ak li nga xamante ne moo lëmbee jamono ji euh, muy rek meurtre yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko bu baax a baax gannaaw ki nga xamante ni nag moom moo di Kiné Gueye mu nekk sax ab gérante multiservice ñu daal di koy faat ci anam bu ñaaw en moins de vingt quatre heures daal dinañuy faataat rek keneen kuy wuyoo ci turu Pape Nia waaye ci Euh, ray boobu sax ñu daal di ray ki nga xamante ne moom moo di Kiné Gueye ci lañuy taxaw ak enquête bi nga xamante ne ni sax jàpp nañ ne mu ngi euh, en cours euh, ci loolu nag liñ ci mën a jàpp mooy enquête bu meurtre Kiné Gueye boobu daal mu ngi avancé bu baax moom gérante multiservice boobu foofu ca Pikine bañ ko rey rek ci anam yu ñaaw a ñaaw fekk ko sax ca multiservice ba rek mu daal di tëdd ñu jamate ko loolu nag ñu daal di rek amal ay enquête ñi nga xamante ni sax moom moo di takk der yi waaye nag liñ ci mën a jàpp rek mooy euh, enquêtes yi li mu euh, jot a révélé rek bokk na rek euh, ci ki nga xamante ni sax moom moo di Kiné Gaye daanaka mën nañ xam ne kii nga xamante ne moom moo ko daal di faat xamoon na ko bu baax a baax ci loolu nag ñu daal di jàpp sax ne ab rek collègue la boo xamante ni ñoo bokk fa nga xamante ni fa la ñuy nekk te kii di Kiné Gaye sax moom la daan verser rek xaalis bi nga xamante ne moom lay dajale ci semaine bi waaye nag leneen luñ ci mën a jàpp rek mooy ci loolu loolu nag dañoo gis ne rek euh, enquête yu njëkk ne euh, dafa amoon ab gap bu toll ci euh, cinq cent mille francs fa ci gap boobu nag looloo waral sax ba ki nga xamante ni moom mooy ki ki ne gay daan rek verser xaalis bi nga xamante ne moom lay dajale ci semaine bi moom moo ko amee woon ci loolu nag enquête yu njëkk yi di révéler rek ne ki nga xamante ni sax moom la ñu daal di rek topp jamono ji mu nekk rek ki nga xamante ne moom mooy liggéey loolu ak moom te mu nekk sax kii di collègue bu kinne gay ci mbirum meurtre yooyu ba tey kii di Pape Niang moom tamit dañ ko daal di jamate rek rey ko ci anam bu ñaaw euh, loolu nag gannaaw ba nga xamante ni sax moom ma jam nañ ko rek ci dënn bi euh, ngir rek vingt cinq mille francs moom Pape Niang euh, daal di nay rek mujjee ñàkk bakkanam ci circonstances yu métti métti waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay proches am daal di nañuy def rek ay témoignages kenn rek kuy wuyoo ci turu Pape Lay di raconter rek ni nga xamante ne noonu la agression bi demee kaddu yu mujj yi nga xamante ne kii di euh, Pape Niang euh, daal dina koy yëkkati rek muy wax ne waxal ma sama papa mu baal ma ak loolu nag moom mooy kaddu yu mujj yi nga xamante ni euh, moom Pape Niang daal dina koy yëkkati mu doon loolu doy waar loo xamante ni jamono ji askanu Sénégal yëpp ñu ngi koy dund mu nekk ab tiis goo xamante ni daanaka kenn xamuloo fu mu jóge rek Sénégal nekkoon pays de la teranga waaye nag jamono ji dañoo nemmeeku rek ne teranga boobu dañ koo daal di rek lajji gannaaw meurtre ak ñu ngi koy nemmeeku bu baax a baax ci jamono ji ci mbirum meurtre yooyu sax la ñuy des ki nga xamante ne moom moo di woykat bi di Wally Ballago Seck daal dinay am njàqare lool muy yëkkati sax ay kàddu ne je ne reconnais plus mon Sénégal moom nag muy xamle sax ne fan yu mujj yi gis nañ ne lii di meurtre yi daal dinay bëri lool ba tax sax moom kàddu euh, mu yëkkati ay kàddu ne je ne reconnais plus Sénégal muy wax ne sax ne insécurité bi nga xamante ni mu ngi euh, régner rek fii ci Sénégal dafa métti lool euh, ci diirum benn waxtu rek li nga xamante ni sax moom moo di benn fan. muy vingt quatre heures euh, daal dinañuy rek assister ay meurtre yu bëree bëri muy xam ne ne sax ne loolu dafa doy waar trop war nañu xoolaat bu baax a baax ni nga xamante ne noonu la ñuy doxalee. beneen artiste bu wax rek ci meurtre bi euh, kii nag euh, sœur la ci euh, Youssou nduur muy wuyoo ci turu Aby Ndour moom nag muy wax ne rek ne ñi nga xamante ni sax ñoom ñooy takk der yi ak nguur gi dañoo war a jóg moom woykat bi di abinduur Ndour di dinay def rek ab sortie jëmale ko ci série yi nga xamante ni daal dinañ koy nemmeeku jamono ji muy yëkkati sax ay kàddu naan il nous agresse et après il nous tue loolu nag nekk ay kàddu Aby Ndour moom woykat bi nag di xam ne sax ne kii di njiitu réew mi da cee war a jokk ak ñi nga xamante ni sax ñoom la ñu dénk kaaraangi réew mi. des ci loolu ba tey keneen ku wax ci coowal euh, meurtre yi nga xamante ni sax daanaka moo lëmbee Sénégal yëpp ab artiste la di wuyoo ci Alima Gadji moom nag daal dina yëkkati ay kàddu rek gannaaw ba mu defee sax ab vidéo ci page Instagram moom nag muy affiché rek li nga xamante ne moom moo di njàqare bi askan wi yëpp am rawatina moom sax muy xamle nag euh, ne ñi nga xamante ni sax ñoom ñooy euh, ñi nga xamante ni ñoom la ñu dénk kaaraange réew mi ak njiitu réew mi dañ cee war a jóg bu baax a baax ndax kat euh, mu ngi bëgg ëpp loxo waaye tamit di ñaax ñi nga xamante ni ay moromu influenceuse am lañ ak influenceur euh, ñu daal di rek gën a def bruit wax ci li ni mel euh, ngir rek daal di dakkal li ni mel. ab vidéo sax bu ñuy gis rek ci euh, li nga xamante ne moom moo di internet bi mu muy rek yaay ci ki nga xamante ne moom moo di euh, Kiné Gaye euh, moom nag gannaaw vidéo bu triste boo xamante ni daal dinañ koy posté rek moom nag maire bi mu ngay jooy jooy métti di ñaanal ki nga xamante ni moom moo di doomam waaye tamit di yëkkati ay kàddu yu rafet rek di ko teg ci deram gannaaw ba nga xamante ni sax moom doomam jooju daf ko yërëmoon lool taxawu ko fépp kàddu yi mu mujjee nag mooy rek yàlla na ko yàlla xare aljana loolu nag nekk ay kàddoom yu mujj tamit. vidéo bu triste boo xamante ni ah, daal dina koy def rek ngir rek wane njàqare bi nga xamante am na ko gannaaw ba ñu faatee doomam di Kiné Gaye ci anam yu ñaaw. ci première dame la ñuy wax di Marième Faye Sall moom nag gannaaw ba nga ni sax am na ay personnes mal di def rek ay njuuj njaaj wala sax di nax askan wi ci fondation bi nga xamante ni yëkkati na ko rek ngir daal di dimbali askan wi moom Marième Faye nag à travers une vidéo daal dinay génn rek andi ay leeral ci li ni xamle sax ne ñoom. fondation bi euh, du ñu laaj dërëm rek bu ñu waree dimbali ndax kat dañuy def rek te yàlla tax waaye nag dafa nemmeeku sax ne dafa am ñoo xamante ni dañuy récupérer ay pièces d'identité nit wala ay photocopie pièces d'identité euh, di laaj rek askan wi ab xaalis rek ngir di leen jox ab ndimbal waaye moom nag gannaaw vidéo bi nga xamante ni moom mi ndayu mbili ji daal dinay génn rek def ko euh, daal di tiim sax ay dossiers yu bëri yoo xamante ni daanaka jot nañ ko muy xamle sax ne ñi nga ni dañoo jóg di def li nañu bàyyi li ñu def ndax kat fondation bi nga xamante ni teg nañ ko dimbali askan wi rek moom moo ko tax a jóg te duñ leen ci laaj dërëm moom Marème fay Sall nag daal di rek indi ay leeral ci jëf ji ni mel. wax ci leneen bi yoon nag coowal ki nga xamante ne moom moo di Idrissa Gana Gueye la ñuy waxtaane gannaaw ba nga xamante ni sax moom daal dinay juróon coow rek ci àdduna bi yëpp bañoon rek sol mayo bu ñu floqué couleur LGBT ci loolu nag moom Mame maxtaar Gueye di njiital ONG Jamra daal dina yëkkati rek ab message bu am solo rek jagleel ko ki nga xamante ne moom moo di Gana Gueye waaye tamit yeneen rek ci ay image yu ñuy gis ñu gis ki nga xamante ne moom moo di rappeurs yi di dix mille problèmes ak daal lii rek lakk drapeau LGBT bi ngir wane rek seen naqar ah, ci li nga xamante ni sax moom moo am jamono ji te ñu koy teg ci doomu Sénégal bi di Idriss Gana Gueye ah, ñoom nag gannaaw ba nga xamante ni lakk nañ drapeau bi di xamle rek ne ah, lépp loo xamante ni dafa xeetoo wàllum borom ñaari tur duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. jiital Pastef la ñuy waxtaanee di Ousmane Sonko moom nag gannaaw ba nga xamante ni sax ah, daal di ñuy rek nekk ci coowal parrainage parité ak li nga xamante ne moom moo di validation ak invalidation ah, li nga xamante ni sax moom moo di seen liste yooyu eh, ci lool nag moom Ousmane Sonko ah, li ñu naan mea culpa daal di génn rek reconnaître erreur yi nga xamante ni ñoom daal di koy def nag mu ngi jëm rek ci li nga xamante ni sax moom mooy seen liste boobu noonu moom Ousmane Sonko sax dal di yëkkati ay kaddu rek gannaaw ba nga xamante ni sax euh, mu ngi janoo rek ak ñii di euh, taskatu xibaar yi euh, ci loolu nag moom Ousmane Sonko muy wax naan dommage une dernière faute d'inattention vient commettre notre liste national loolu nag nekk ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko moom nag muy xamle rek ne ñoom dañoo daal di juum gannaaw ba nga xamante ni sax am na ay erreur yoo xamante ni nemmeeku nañ ko rek ci seen liste nationale bi loolu nag nekk ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko moom nag muy xamle rek ne ñoom dañoo daal di juum gannaaw ba nga xamante ni sax am na ay erreur yoo xamante ni nemmeeku nañ ko rek ci seen liste nationale bi loolu nag di andi njàqare bu baax a baax ci liste nationale bi nga xamante ni yeewi askan wi dinañ ko présenter ngir prochaine législative yi tàggat yaram la ñuy jeexalee coach Aliou Cissé dina dévoiler rek ni ki euh, aljuma ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai list euh, ñi nga xamante ni sax moom moo di ñaari journée yi ñu war a jouer euh, jëm ci qualification CAN 2023 gannaaw rek juróomi weer bi nga xamante ni sax coupe du monde bi daan na ñu ngi koy waaj loolu nag dina tax ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo di équipe nationale bu Sénégal teewaat rek ci li nga xamante ne moom moo di terrain yi ngir rek waajaat. compétition bi bu baax a baax ci loolu nag liñ ci mën a jàpp rek mooy euh, kii di Aliou Cissé nag dina fësal euh, liste ñi nga xamante ni ñoom ñooy bokk ci yile rencontre. mbokk yi safoon doon ñu teewlu ci seen chaîne Allô Sénégal yi lañ leen indiloon andiloon seen xibaaru bis bi di leen ñaanal jàmm di sàkku tamit ngeen ñuy ñaanal jàmm euh, di leen dig daje beneen yoon incha allah waaye nag ngeen abonné suñ chaîne bi te laal cloche notification bi bañ a dara ci suñu information jërë jëf.